euh, la suppression de Pastef sort de de de de de nulle part pour man. Ah bon? voilà absolument pas absolument. Ah, ça ne se, rien ne le justifiait. je ne le je ne le vois pas je ne m'y attendais surtout pas. moi je considérais que on était dans la bonne direction surtout bi président Macky Sall bàyyee euh, troisième mandat bi man je me surtout que moom dafa commencer par dialogue. voilà ensuite bi mu paree dialogue bi ne bàyyi naa troisième mandat bon lu bari xew na ci diggante bi ah bàyyi naa troisième mandat bi mais ku nekk nag doon xaar ñu dem vers plus de détente voilà euh, euh, nit ñi gën a dal gën a féex euh, ñu commencé discuter inclusivité des élections maanaam ku nekk mën a bokk voilà comme da doon baal baal na ñaar ñoo xam ne ñi ils étaient inéligibles mais nga baal ñëpp ñëpp bokk ñu am ay élections loolu lañ doon xaar mais jékki-jékki on voit que les choses s'accélèrent dans un sens qui à mon avis n'est pas le bon mais sens. mais parce que euh, était tellement omnibulé par l'histoire de la troisième candidature et euh, que dégluñu l'autre partie de la du discours de Macky Sall parce que am na fu mu waxee ne euh, euh, nekkatul candidat waaye lépp luy prérogative am dina ko exercer te képp koo xam ne. laale nga ci li fi xew diggante 2021 ak tey euh, dinañ la teg ci yoon yoon dina def liggéeyam lui dina jël ay responsabilités am est-ce que du loolu la nekk di mettre en œuvre euh, actuellement euh, trompé ñi nga xam ne yaakaaroon nañu ne euh, après le dialogue il était dans les dispositions encore euh, d'ouvrir le le le le le champ politique. man dama jàpp ne loolu moo doon cëram ouvrir le champ politique dalal réew mi parce que nag Sénégal ñun. jàmm jaral nañu lu ne donc moom bu fekkee ne sénégalais yi defal nañ ko teraanga nag quand parce que fal la falaat la teraanga mënu ko weesu voilà euh, moom li nga xam ne laa jàppoon ne après ce qui s'est passé wax na ne teg na troisième mandat ci suuf ñu ne ah ça c'est bien àddina bi yëpp félicité ko la nga xam ne moo bëggoon ci tamit ah mais c'était un combat que donc beneen pas bi nga xam ne moom lañ doon seet mooy plus de détente surtout que mu ngi woon dans une dynamique de waa damay baal ñoo xam ne mënuñu woon a bokk ci ay élections donc mais vraiment baalal ñëpp waaye subitement kenn xamul sax dafa dafa jékki xiinul sax daal di taw voilà arrêté Ousmane Sonko bien que dañu lever woon sax ay barrières am buntu këram yooyu yëpp a ngi ci woon ah lever ay barrières def naa ne moom sax julli ji woon na ci li ma jàpp ak yu mel noonu donc liñ doon xaar mooy ñu continuer ci sens boobu voilà arrestation ay charges yoo xam ne ça date de <laughs> il y a deux ans euh, ba noppi supprimer son parti voilà di ko dissoudre kooku vraiment pour man Euh, d'où le bon sens. alors la euh, là da ngay waxee ci côté bon sens ci côté dialogue politique mais sur le principe est-ce que les actes qui ont été posés euh, acte relatif à l'inculpation de Ousmane Sonko et la dissolution euh, de PASTEF sur le sur le principe juridique euh, d'après yow est-ce que c'est fonde ou pas benn fondement amul ci loolu kooku dama ko yàgg a wax ne euh, ci processus su sélection de candidats la ñu nekk xam nga sànq bi ñuy commencé nga naan ma fàtte woon naa sax ne parce que bi nga may annoncé da nga ma annoncé comme député. waaw damaa jum ma ma bindal la da nga fàtte woon voilà <laughs> dañ ma expulsé de l' assemblée nationale euh, illégalement voilà donc acte illégal yi. dañ la non dañ ma doole. dañ ma jaay doole. dañ ma jaay doole soxna mooy jaay doole boobu. jaay doole boobu nag yemul ci man de dañ koy dañ ko élargir feneen. ba nga xam ne bon dañuy éliminer candidats yi et cetera man dama jàpp ne ci loolu lañ nekk te man su may wax ak président Macky Sall dama ko naan. na moytu extrémistes yi ne ci wetam parce que ba mu demee ba lever ay barrières Ousmane Sonko jàppoon naa ne xëy na mu ngi wan ci dynamique u détente ah xëy na dañ ko cee génne. moom suñu nekk ci dynamique u détente man de man loolu laa gëm le dossier d'appel à l'insurrection du dossier bu ñu préparé en 48 heures ce dossier euh, ñu ngi koy fournir en tout cas gën nañ koo taxawal. deux à trois mois derrière lever barrière yi loolu ay subterfuge la woon rek. ah la woon. waaw ah donc d'accord ay subterfuge la woon rek loolu dama jàpp ne booy jiite booy jiite euh, mu dese la six mois ndax six mois moo dese président encore que kooku dinañ ci débattre parce que euh, li ñuy li ñuy li ñuy li ñuy dégg aussi euh, ba ci médias internationaux yi ak yi xew nii ak et cetera voilà. il faut absolument qu'on respecte le calendrier euh, républicain élection présidentielle am février 2024 kooku moom warta am lu ñu xam dañ ko constitutionnaliser dañ ko constitutionnaliser président bi ñu fal mu tudd président Macky Sall bu ñu yegsee février 2024 amatul légitimité alors loolu loolu dañ ci balaa balaa balaa balaa ñoo yegg si foofu donc dama jàpp ne bu fekkee ne six mois moo la dese li la war d'abord mooy nga terminer sa travaux yi xam naa ne bu ñu dimbale woon nag ba Dakar li gii ñu gas vraiment ñu ñu terminé ko <laughs> fileeg février dinañ sant bu baax a baax a baax BRT bi nga xam ne ku ne bu xiinee nga tiit voilà tout annoncé nañ ñu dina pare dina pare dina weer bu ñëw ñu dàq ba ca des boobu moom war na koo terminé ak yeneen yi nga xam ne xëy na war na koo pare waaye li nga xam ne mooy tâche am soxna may mën a essentiel mooy mu dalal réew mi indi fi jàmm euh, jàmmoo ak ñëpp te loolu am na possibilité bi man loolu laa liire woon ne ba muy dindi barrières yi euh, ci euh, kile euh, këru Ousmane Sonko ba mu wàccee ne defatul troisième mandat et cetera ci yoon woowu la doon dem te loolu mooy yoon wu baax bi man damay encourager dama koy encourager mu des ci yoon woowu bu baax bañ a déglu extrémistes yi nga xam ne ñoo ko wër parce que loolu du intérêt moom. parce que lu ñu mënti am fii jàmm moo ñu ko gënal jàmm moo ñu ko gënal parce que le Sénégal. Euh, produit intérieur brut bi am gën a am solo du pétrole bi ñuy xaar du gaz bi ñuy xaar du du du du du phosphate yi ñu am jàmm ji la ak stabilité bi la loolu moom euh, ci ci ci ci maanaam li mu ñuy bàyyee héritage bi mu ñuy bàyyee loolu da ciy am solo lool lool lool. mais mais mais mais est-ce que au nom de la démocratie euh, et des élections inclusives aussi est-ce que dañoo war a salfaañe ni justice war a demee euh, est-ce que tout ce qui a été compilé comme déclaration incendiaire euh, et menaçante de Ousmane Sonko est-ce que euh, mënoon nañu ci toog au nom euh, de la volonté d'absoudre de des des politiques. mais xam nga euh, yaa ngi wax sànq yàgg naa ci xaw naa yàgg ci politique bi même si à un moment dama choisir dem def une carrière une carrière internationale 93 31 ans la am nekk directrice de campagne. Euh, de Landing Savané donc defe naa ne am na pan wu histoire u Sénégal bu ma xaw bu ma fekkee quand parce que dootuma xale mais rhétorique opposition mais nii la ma sa mel président Macky Sall ci boppam vidéo mi yaa ngi fi ñaata yoon la fi def vidéo ne président Ablaye Wade bu deful nii dañ koy fekk ca pale ba loolu lu mu tudd loolu ci tubaab nu koy tudde du benn yoon du ñaar yoon kooku ci statut opposant euh, la bokk ak ci ak ci rhétorique bi voilà noonu noonu noonu noonu la demee moom def na ko président Ablaye Wade président Ablaye Wade lu lu mu waxantewul ak président Ablaye non d'ailleurs ah. l'a a et, et d'ailleurs j'étais surprise dans son livre euh, mais des, des des termes utilisés par euh, les Boubacar Sall les Ablaye Wade les Ousmane Ngom des termes très graves loolu fekkee naa ko très grave loolu fekkee naa ko mais tax taxul taxul euh, déjà diggante président euh, Senghor ak président ab Abdoulaye Wade boobu xale laa sax mais boobu tamit opposition bi c'était une opposition dure mais c'était surtout entre le candidat Abdoulaye Wade l'opposant Abdoulaye Wade ak le président Abdou Diouf boo ko fàttali ko mais c'était très très très dur mu ciy am aussi ay mort d'homme ak yu ni mais taxul taxul ba tey ñu taxul ba tey ñu dissoudre Parti démocratique sénégalais mais diggante PS ak PDS lu ne na fi lu ne na fi. des procès quand même. Euh, 88 euh, oui. Euh, les événements euh, électoraux euh, euh y a eu des incarcérations. 93 il y a eu des des, des incarcérations. Oui. Au je pense que à chaque fois. dinañu solder le passif au niveau de la justice. même si les gens se retrouvent politiquement après. mais justement ah, loolu xam nga fi nga am na solo se retrouve politiquement après mais li tax ñuy retrouver wu. caractéristique nit ki mu doon politicien mooy parte kenn musta dissoudre parti dernière dissolution d'un parti politique euh, soxna may mun a c'est 1960 PAI 63 ans ca ginnaaw kooku damay jàpp ne pour ñun dellu ginnaaw mun bu bu méttee méttee Abdou Diouf dissoudre na le mouvement Moustarchidine non mouvement nga après les élections de de 93 93 léegi ñaata at la yàgg na de def naa ne ñu ngi dem ci 30 ans ren mais kooku sax mouvement la woon waaye parti constitué 1960 la le parti africain de l'indépendance kooku la woon ca lañ ko gëj a defee. Euh, mais li ëpp solo c'est Abdou qui a dissolu le mouvement. le mouvement Moustarchidine je pense que les trois dissolutions de parti politiques qu'il y a eu euh, ce sont les deux partis de Cheikh Anta et le parti de le PAI de Majhemout Diop. c'est ça donc noonu loolu voilà sous Senghor loolu yàgg na loolu donc quand même je pense que euh, recul démocratique la daal. te loolu comme waa PASTEF dugal nañu recours administratif je pense que dañ leen war a euh, voilà réinstaller comme parti man man c'est ça ma position dañ leen réinstaller comme parti je pense que euh, jusqu'au boutisme bi nga xam ne ci la ñuy pousse président Macky Sall parce que ba tey jàpp naa ne euh, amoon na intention wu détente ma loolu mooy sama man loolu mooy sama lecture. mais ci dellu si waat mais jusqu'au boutisme boobu d'après yow. je ne sais pas ñoo am intérêt à le radicaliser. je ne sais pas je ne sais pas il faudra il faudra man jóge naa fa xaw naa faa gëj yàgg mais je sais que y a des jusqu'au-boutistes là-bas aussi xam naa loolu mais loolu du intérêt moom président Macky Sall parce que moom nag moom la ñu fal du intérêt bu ñu demee def seen recours ñu leen reconstituer lañu leen joxaat seen parti ñu nekk un parti comme tout le monde parce que faire partie du jeu démocratique moo gën bañ a bokk ci jeu démocratique. ndax lenn am na nit ki boo dindee parti bi militant yi mënoo leen dissoudre. responsable yi mënoo leen dissoudre sympathisants yi mënoo leen dissoudre électeurs yi mënoo leen dissoudre donc bu fekkee yow parti bi problème la ci yow réglé woo benn problème en en en dissolvant parti donc je pense qu'il faut revenir à la norme euh, ko Sonko ñu génn ko. parce que ñi nga xam ne baal ñi ñi ñu baal ba ñu nekkaat électeur mais buñ leen baalee mën nañoo baal ñëpp. man loolu laa jàpp